mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm si càq-càq xibaar Bassirou Diomaye Faye yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci procès bi dox diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko ci journal Libération mu ngi xamale ni ay pexe yu ñu teg la ngir tere kii di njiitu Pastef mu bokk ci élection yi moo tax ñu bëgg a accélérer processus bi démb ñi doon liggéeyee ci SETER daal dinañ perturber trafic bi ngir jàppale seen naataango di Mati Ñing kii di Mati Ñing dañ ko dàqoon gannaaw ba mu jiitee ñi fay liggéeyee pour ay revendication noonu la yëkkati ay kàddu ni directeur SETER daf ko dàq rek ngir tiital ñi ci des. waaye direction bu SETER daal dina réagir ca journal observateur Abdou Ndéné sàll mu ngi xamale ni caabi teer bi dañ ko sàcc waaye gendarmerie mu ngi def ay enquête SETER sax jot na déposer plainte te ñu ko def suñ leen jàppee ay daan dina dal seen kaw. équipe bu Bayern daal dina yëngatu ca vestiaire ya la Sadio Mané daal di jote ak kii di Leroy sànnee média allemand yi di xamale ni jote woon nañ lu ko jiitu waaye biñ duggee ci vestiaire yi lay yokk ba Sadio Mané daal di ko dóor ci kanam. foofu ca hôpital Mamadou Diop bu Liberté 6 extension la Mbacke Ndiaye daal di ñàkk bakkanam gannaaw accouchement waaye borom këram jàpp ni décès boobu nekkul lu naturel ndax dafa gis ci kanamam ay gaañu gaañu ba tax na mu porter plainte xibaaru bés bi ñu ngi koy jeexale ak fàttaliku le 13 avril 1987 lañ dàkkoon ay policier gannaaw marche bu ñu amaloon di soutenir seen juróomi ñaari naataango yu ñu condamné woon li waraloon boobu condamnation mu di benn sàcc bu ñu jàppoon garde à vue moo fa ñàkkoon bakkanam ay mbokkam daal di porter plainte marche boobu ñu organisé woon moo taxoon ñu dàkkoon membre force police ci administration bi mbokk yi lii la leen télé bu baax bi indiloon tey si càq-càq xibaar di leen jox dig daje suba ci yeneen xibaar jaa ngeen jëf.